léegi mu di président Macky Sall parce que jàpp nañu Macky Sall na nag li fi def lépp euh, Sonko mu koy ñaawlu bu baax a baax daal di jàpp ni euh, ñoom euh, ñu fi di fayanteel malgré li ñu def du nga koy ñàkk bañ li nga xam ne que mu di punir mais dal na si kaw ki nga xam ne que moo di Amadou Ba nee na am moo gën a garaaw ki nga xam ne moo di président Macky Sall nekk na aussi anecdote yi nga xam ne itam mm, dund na ko moom ak ki nga xam ne que moo di Amadou Ba bokk na sa li nga xam ne que di impôt domaine de du fi amee euh, wala mën a yow dinañu dégg exactement alors naka na daal di jàngatee aussi li nga xam ne que moo di Ousmane Sonko le fait que tey mu jël li na xam ne que moo di sa sortie peut être daal di koy accentuer si li nga xam ne que moo di le candidat du Macky Sall. ah xëy na peut être euh, ci logique politique la ne parce que Bassirou euh, Amadou Ba c'est un candidat à l'élection présidentielle parce que foofu mën naa si am ñaari njàngat. Hmm. voilà une hmm. lecture politique d'abord. et active politique mooy dañu nek ci champ politique œil pour pour œil pour peut-être il est en train de l'écraser pour euh, baliser le chemin à Bassirou Diomaye Faye hmm. parce que son fi wax Sénégal ak ak président Macky hmm, hmm. campagne maintenant caricaturer Amadou Ba ci walum njut njat mm. ak ci walum jëllo jëlloo ci feulé ci un point domaine mm. jusqu'à preuve du contraire mën nañ ci am ben certitude parce que xamul da ñom ñaar ñoo nekk lo won un point domaine Sonko presque Amadou Ba mo doon patron presque donc bu waxee loolu mo nekk patron mo nekkoon patron donc bu waxé lolu jusqu'à preuve du contraire mën nañ ci taxaw mën nañ ko mën nañ ko japp parce que Sonko mi ko wax Sonko yag na wax ni mom def na impôt et domaine quinze ans presque musul loubal dara musul fa jël dara te un opposant bu toll Ousmane Sonko taxaw osé wax lolu te bo bo légui ubbi luñ ko benn dossier wan ko ni ya sàccoon li wala yaa dugg lii. Hmm. kon meun nañ japp jusqu'à preuve du contraire ko double ko djubla donc bu waxé li ci Amadou l'avenir nous dira en tout cas Amadou Ba même bu dul Sonko y a beaucoup de gens qui disent que ni vraiment c'est un corrupteur ñu bari ko wax. Mais il y a des, certains candidats qui le disent. Maintenant, si Ousmane Sonko revient pour confirmer euh, véritablement li nga xam ni que agiter l' espace public. parce que mm. lii tamit am na leneen lu mu mën parce que avant Ousmane Sonko di génn gis ngeen li ñu doon wax ci affaire corruption juge mm. conseil constitutionnel. Mm. kon nit ñi même bu commencé woon sax am doute ne Amadou Ba li ñu koy mal ci conseil constitutionnel moo ko defut defut bu ko Sonko waxee rek nit ñi mën nañ commencé di am certitude ni ah léegi kon juge du conseil constitutionnel ni wax Amadou Ba à hauteur de combien de milliards. Mm, un milliard ça peut être une réalité ça peut être une réalité mais de toute façon l'avenir nous dira et je pense que demain demain à partir de demain il y aura des rebondissements par rapport à ça parce que c'est pas des des des des accusations gratuites c'est pas des accusations gratuites. Et Amadou va, va, répondre par rapport à ça. Ah, mais ah, Amadou va répondre. Non, demain, je pense que. Parce que je une plateforme, une ah. plateforme déjà. Il y a des gens qui nan, dit ci affaire Mambay Niang bi xawma ko fay xawma nangam ak nangam euh, boobu Sonko lañ doon gaaruwaale ci affaire qui 15 15 les 200 millions 200 millions yi am ci wax après di ko quoi. Hmm, hmm. voilà peut-être ñu ngi préparer ay dina ko tontu hein. même bu fekkul même même bu ko dul tontu nii dina ko tontu ci meeting loolu ce qui est sûr et certain moom il va répondre loolu moom ça m'est sûr et certain que ni Amadou va répondre hmm. à Ousmane Sonko hmm. oui alors donc euh, attaque yi attaqué ki n'a xam ne que moo di am ñiy jàpp ni euh, mën na nekk wàllum politique aussi ñuy jàpp ni mën na nekk di baliser li nga xam ne la voix à Bassirou Diomaye Faye mais quand même aussi am na ñoo xam ne jàpp neen est-ce que Ousmane Sonko peut-être euh, qui euh, est ko derrière par rapport à ces attaques. Oui, mais ça peut susciter des débats et des interrogations. Mm. parce que quand Ousmane Sonko vient automatiquement et attaque directement à Ba le premier ministre il y a un peu dara adduna bi ba koy de corruption parti politique am ñu caricaturé. koy caricaturer. ñu ngi koy mm. xas. Mm. ñu a débarrasser wu ci moom. ñu traiter de tous les mots d'oiseaux même son le président biko tan tay tey bëgg na bëgg na débarrasser wu ci mom maintenant si Sonko vient attaquer automatiquement Amadou Ba donté amna na lu mu wax ci Macky Sall. Mm. am lu ma si déglu mais bu ñëwé rek Sénégal bu gatt xel bu melni ni man déglu bu baax de Sénégal bu gatt xel bu melni man. Mm. dina né est-ce que Ousmane Sonko de façon indirecte même s'il ne le fait pas intentionnellement. Mm. est-ce que nekkul. di mel ne kuy dooleel Macky Sall ci débarrassé bi mu bëgg a wu ci Amadou baax xam nga loolu lépp mën na ne ci sénégalais bu gàtt xel mën na gisee noonu parce que dañ naan tout récemment la génn kaso te dafa am moo tax sànq dama ne mbiru Sonko man avancé wu ci sànq ci débat bi ñu jógee woon parce que dama ne mënu ma ci avancé tant que moo ko il faut ma déglu ko parce que dafa am ay accusation dafa am lu doon jël di tek ci daram bi mu nekkee ci kasso bi. Mm. dañ doon wax ni Sonko mi ngi gisee Macky Sall. Mm. mi ngi waxtaan ak Macky Sall loi d'amnistie bi. Mm. il est demandeur nangam nangam duna wax nañ ko. maintenant pour ma mën ci dem au fond il faut que ma déglu ko xam yan argument lay indi par rapport ak ça parce que man dama wolu Sonko jusqu'à preuve du contraire man dama musa taxaw fi ce plateau né jusqu'à preuve du contraire Sonko andul ci loi d'amnistie bi parce que dama jàpp ni waxi dembam dina ko sam te waxi démb moo doon lan loi si wii ay ci waxi caaxaan la ku de sénégalais qu'est-ce qu'ils attendaient les sénégalais ñu ci bëree bari xam nga dafa am lu leen Sonko miinaloon. Mm. lu leen Sonko tàmmaloon li leen Sonko miinaloon mooy Sonko moom première génnam nañ xaar ni moom Macky tey mu dee ay munitions yu bëree bari la yoon bu dóoree moom jàppal ni bu dóoree. ñen ci ki ku nekk deux japp ni mil yëpp ci kaw Macky Sall la jëm maintenant nag tey bu Sénégal yi ñëwé mais tay néna ñu gën ci Macky ndax Macky du ko fi des. waaw lool nak lool nak loolu nag aussi xam nga nit ku ne xalaatam. dem na paré na jéxal na. waaw xam nga ñu ñu focus ci Amadou Ba. waaw euh. man pour man sax Amadou Ba jarul focus yenn focus yi mais Amadou tout le monde sait que mënul gagner il ne peut pas remporter ces élections. mais né dañuy gagner. ñan ci base bi ñu yor. ñu Amadou Ba. waaw waaw ci euh, wa coalition Benno mais fu ñuy gagné. gàtt gardien am 56 pour cent. mais xanaa nañuy gént yow rek uni mënuñu ko am bloc uni dañ leen a xaw assemblée nationale hmm. bloc uni laa wax bloc hmm. uni. Macky Sall hmm. ñëw. Mame Boye Diao ñëw Abdoulaye Boun Dionne ñëw ñeneen ak ñeneen ñi mer leen am da ngeen non non donc il est hors de question. non man man 56 euh, euh, avancé. non je ne sincèrement parlant sais pas. si sais rek si Je pour parler, je ne pas si je rencontre beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens même mais je ni c'est parce que nous nañu damay défendre Ousmane Sonko jàpp nañ loolu. ci sama argument kon du man hmm. damay japp ni du tiofel guñu am ci man de. Hmm. waaye cofeel gu am ci Ousmane Sonko la moom dem ba laalaa lañu. te nu défendre défendre Ousmane Sonko on hmm. défend la vérité. la vérité. man ci affaire Amadou babi xeyna peut-être di ci ñew ñëw. ko bolé président Macky Sall. j'ai une position ferme.

tay gisoo les les les quelques membres de de Benno ben Benno mbok yakar gisoo ko si toile bi lu wax ils vont soutenir bun Abdallah Dionne xëy nga peut-être gisoo ko gis legui en direct ils vont soutenir parce que dañ don xaar conseil cour la cour suprême ni ñepp jappone moy cour suprême da fay and ci euh, euh, recours du PDS mm. mais dès le dès dès l'instant que recours bi génn mm. ñu war dañ def déclaration ils vont soutenir bun Abdallah Dionne C'est ma ultime conviction Amadou Ba n'est qu'un candidat de façade. le véritable candidat de Macky Sall c'est Boun Abdallah John. mais Macky Sall démenti n'a nga xam ne itam seen na ko si dans dans sens. Oui, mais dama ni moom Macky Sall il faut que génn wax ak sénégalais Non, loolu ça dara c'est des réactions de façade. c'est des mascarades mais bu dee da ko gëmoon mu mais jëf yi wane ko.

demoon na ba nit ñi tuddee ko bouton bouton boo xam ne da ngay bës parce que moo ne woon moom ndigalu Macky rek lay xaar bàyyi faalam la nit ñi tuddee ko fa bouton tuddee ko fa bouton est-ce que nga kuñ dem ba ñu tuddee la bouton bouton mooy sa comme commande bi nga yoroon sànq nii di régler télé bi bouton xam nga commande yi foo ko orienté rek fa lay jël bun Abdoulaye Dione moom nee na loolu la moom sien dégg mais bi Macky Sall tànnee bu baax mu génn <laughs> ah

ànd wa waa coalition bi ñu ne tan nañ Amadou Ba mu mu mu jël yoonam. alors euh, mais Serigne euh, euh, retournement de situation li si daal di war a mën a entre ki na xam ne moo président Macky Sall euh, Boun Abdoulaye Dionne ak ki na xam ne moo di Amadou Ba alors euh, mais tey suñu ñi campagne mu des li nga xam ne moo di benn jours alors Sonko war daal di war a mën a campagne pour passer Diomaye Faye Macky aussi war ko daal di mëna def pour ki na